safar terooti sunu derot yëngooti naa sunuy siddiit yëngooti naa bu ñuy jóg di way sang be Seexul Xadim addis auzu billah bismillah inna waliyallah jërëjëf Serigne Touba ke jara am maam Cheikh Ibrahima Fall Lambaawul Muridina ngàcce ngalaama Serigne Afiya Mbacke Fallilu jokko jël Cheikh Ahmadou Lamine Baara Mbacke Afiya est-ce que mbokku taalibe yi tey ñoo ngi ak sunu sëriñ sunu yaakaar sunu tey sunu ëllëg sunu lépp ànd fas yéene waaj màggal gi ñu fas yéene ko tàllal mikoro mu wax mbokku taalibe ngir ñu àndandoo waajal màggal gi nga xam ne màggalu sëñ Tuubaa di maamam ju sell ja ku baax ga ku tedd ga ki texel jaam ñi tey ak ëllëg fii ak fanu jëm ñoo ngi nii tey fas yéene tàllal micro sunu sëriñ sunu yaakaar ngir mu joxe woote màggal gi Mbàkke Balla ñu ngi lay siyaare ak saa ñu ngi leen delloo ziar bu baax a baax di leen sant bu baax di bëggee ñëpp rek di nuyoo nag di jiital ci nuyo bi euh, Cheikh Mountakha Bassir. Mm. xalifa général ku di ñaan suñu borom mu yàgg fi loolu te wér. waaw di tegi Baraka xalifa euh, Cheikh Modou Fallal. Mm. di ñaanal mu yàgg fi loolu te wér. di ñaanal it euh, sëñ alhamdulilah. Mm-hmm. waaw di ñaan it mu yàgg fi loolu te ndax xew-xew bi duñ fee fekkul dañoo ci ñu génn waaye ñu ngi ko ñu ngi ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool moom it te wér ñaanal. sëñ Cheikh Jëm Fall. maam Sèye bi la teeru ko. ndax li génn lu lu am solo ci yoon wi. waaw di sant mbokk di di mbokk jullit yëpp. di mm-hmm. di ñëpp rek di sant ñëpp. Mm-hmm. waaw di sant ñëpp rek mbokk taalibe yëpp waaw. mu mel ni màggal gi agsi na mooy la vingt six bii di ñëw ci kàttan suñu borom lay wax mbokk taalibe yi waaw mbokk taalibe yi xanaa leen wax ñu ñu rek ñu ñu waajal ko rek mhm. ñu waajal ko luñ ko daan waajalee xam ni màggalu Sëñ Tuubaa moom mhm. Sëñ Tuubaa koy moo ko moo koy taxawal boppam moo koy defaral boppam mhm. ñun moom dañuy lu rek nekk ca te ne ca ndigal la rek loolu loolu loolu foofu daal lañ féete waaw ne ndigal la rek di di di sàkku it waaw ñëpp rek waajal ko. ci Ndindi waaw ci Ndindi Afia. ngoog waaw ci Ndindi Afia rek. kon nag mbokk taalibe yi ñoo ko déggandoo Ndindi Afia la Ndindi Afia nag bu ngeen ko déggee boo ñëwee ba Ndindi kër Sëñ Abdou Karim boo rombee tali bi kër gi fi tali bi séparé woo da ngay daal di def sa càmmoñ jël tali bi jàdd sa càmmoñ daal di topp tali bi prolongé ba ca kaw cent mètres cent et ci kanam di nga gis tableau Ndindi Afia gi mu ngi lay féetee sa ndeyjoor Ndindi Afia gi nag boo àggee ci tableau bi dinga gis tablo gi am na photo Sëñ fallu am photo Serigne Afia am photo Serigne Baara Mbacke Afia mii toog ci diggante bi mbedd boobu nag ngay wàcc doo ko bàyyi ba ci buntu kër Serigne Baara Mbacke moom Serigne Afia Mbacke sunu fàll sunu yaakaar teex ëllëg kon nag màggal gaa ngi noonu képp koo xamante ni njabootu Serigne bi nga ndigal li mooy foo mën a ne bisu màggal na la fekk ca ndindi ñu ànd sant Serigne Touba ak sunu yaakaar gi teex ëllëg. yàlla fi yàgg te ànd ak wér Mbàkke jërëjëf nga defal mbokk taalibay ñaan <laughs> amin amin amin amin amin jërëjëf Mbàkke yàgg ak wér safar terooti na sunu deroot yëngooti na sunuy siddiit yëngooti na bu ñuy jóg di way sang